gis nañu ko def ñebbe dina ñëw gis naa ko def dugub incha allah dina ñëw ci vidéo yi incha allah ñu ngi ñaan rek ku am gént ñu xam ne noonu lay demee léegi ngeen bañ di envoyé ti message vocal whatsapp noonu la daan demee envoyé vocal whatsapp fay 500 mais ñu arrêté gum ko daal xool moo tane laa jàpp ci kanam li taxit mooy daanaka laaj yi may laaj li ci ëpp mooy vidéo yi ma def. te li nga def vidéo ñu woowaat la laajaat la ci fayaat ci 500 sakkanul ci yow ñu may seetaan ndax mënoon ngaa yeewu ci salaire rek nga tàppe rek ne dama gént ataaya ñu jox la vidéo bi nga seetaan daal di doxi sa soxla beneen yoon dana tax nga jàpp ko xam ni gént ataaya di firi boo gisee ku la ko laajee mën nga ko tontu noonu la liggéey bi di doxee moo xaw a gën a système boobu moo gën a euh, pratique yaakaar naa ne ci man sama gis-gis euh, terewul nag. koo xam ne bëgg nga ñu jot téléphone ci gént bu la yitteel ñu firi la ko mën nga ñu woo mais téléphone mais 2000 francs ngay fay incha allah su boobaa dinañ la firi sa gént euh, attaaye ci gént lan lay firi dafa am ay tegtal yu bari attaaye léeg-léeg dana firi stabilité ak dal ci aji gént gi dana firi njàqare yu dañ dana firi coonook yu jeex dana firi euh, wërsëg euh, dana firi tàqalikoo ci sëy divorce dana firi problème ji yu xat ak i xat-xat ci sëy euh, dana firi ay coono dana firi xabaar bu neex dana xew firi xabaaru mbégte kañ yooyu yëpp danañ ci ñëw ci détail incha allah ci firi bi ki ñu njëkkee tey mooy jigéen joo xam ne mës nga sëy ba tas walla jigéen joo xam ne doon nga sëy ba sa boroom kër génn àdduna nga gént ataaya lan lay firi ci gént euh, jigéen ji doon sëy ba taqalikoo ataay ci moom dana firi wërsëg dana firi xabaar bu neex dana firi xéewal ataaya boo gis naan ko la walla di ataaya lu mu ci mën a doon bu fekkee baraada bi ñuy ataaya ci jigéen ji doon sëy ba tas da nga gént yor baraada ataayakaay baraada bi dañ lay laaj ndax am na dara nga ne xottu baraada la ñun la baaxul day firi xabaar bu naqar yi nga ne am na dara kay ñun la baax na lool baraada bi gis na ne def na ataaya bu fees mais tàngul dana firi xabaar bu mbégteeg xabaaru bànneex euh, baax na ci gént baraada bu tàng jër ba pare amul dara day firi xabaar bu naqar yi ak torof torof baraada bu tàng ba pare am attaaya day firi xabaar bu neex maa ngi ci jigéen ji mësa sëy ba tas wala ku sa borom kër génn àdduna attaaya ci gént ci jigéen ji sëy mësa sëy wala sa borom kër génn àdduna nga gént di ko naan walla nga gis attaaya wala ngay attaaya di xelil ay nit ay naan ñuy naan bu dee laa fekk ci feebar day firi wér ci feebar da ngaa gént xel li ataay di jox ay nit ñi naan day firi relation yu la amal solo day firi yokkute day firi réussite ci say mbir baax na ci gént ëwal ñaareel bi jigéen boo xam ne mësoo am jëkkër maanaam sëyoo amoo jëkkër mooy deuxième point bi ataay ci gént kaasu ataay nii rek wala ataay nga gént gis ko wala yaa koy def euh, baax na ci gént ci charte mu bañ a nekk couleur ataay bi dafa xonq wala mu ñuul ataay ci jigéen ataay bi gën ci gént mooy mu vert euh, lan lay firi ci jànq dana firi nga nekk nit ko xam ne famille bi nga nekk famille bu kuñ fa ormaal nga wala ngay doon wala ko fa ami cër wala ko famille bi di bàyyi ci xel ëllëg dana ko firi léeg-léeg da nga gént tee benn paquetu ataay wala nga gént gis ko day firi xabaar bu neex ci yow boo xam ne da ko gis maam danga am xabaar bu neex wala nga dégg xabaar bu neex baax na ci gént gént di xel yi wala di defar attaay ci jigéen bu mës a bu mësta sëy day firi xéewal day firi mbégte gént naan ko di naan ataaya day firi nga nekk jigéen bu am valeur jigéen bu am jikko yu rafet jigéen bu baax jigéen ji yiw waaye ku nit ñu ormal baax na ci gént bu fekkee danga gént yor baraada ataaya bu tàng jër baaxul day firi nit ñu añaan wala nit ñu soxor ñoo xam ne mën na laa yàqal ñenn ñi ne day firi ay problème ak i xat-xat kooku moo baaxul danga gént jënd baraada ak i kaas yi ñu ataaya ci jànq li muy firi lenn xabaar bu neex wala jëkkër ala kulli xaalin buntu baa ngi noonu gént di ko naan wax naa la ko day firi nga nekk jigéen bu tedd ku baax ku yiw ma ñëw ci euh, jigéen joo xam ne yaa ngi ci néegu sëy am nga jëkkër danga nga gént gis ataaya day firi wërsëg yow day firi alal day firi stabilité ci famille day firi problème ak njàqare tolof tolof yu dañ bu fekkee danga nga gént gis ataaya baraada ak kaas yi ñu ataaya ci jigéen bu nekk ci néegu sëy day firi xabaar bu neex xabaaru mbégte dana firi texe dana firi tal ci sa néegu sëy gént nag di jaay ataaya moo xam ataaya bu ñu defar la moo xam bu ñu defarul da nga gént di ko jaay ci jigéen duy sëy baaxul ñenn ñi dañu wax ne day firi xilaafaat zawjiya maanaam problème ak yi xat-xat ci sa néegu sëy ñeneen ñi ne day firi sax divorce ñoo xam ne gën naa sori ci ñoom wala yaasu billah yàlla nag moo xam waaye loolu lañ wax lañ firi baaxul ci gént ci jigéen joo xam ne yaa ngi ci néem say jigéen ji ëmb nag ataaya ji moom day firi mucc ci coono ëmb mucc ci feebaru ëmb feebar ci ëmbam dana firi am doom bu yomb moom ci ataaya baax na ci moom lool ci jigéen ji ëmb di ataaya di ko jox ay nit dana firi wërsëg naan ataaya baax na dana firi mucc ci coono ëmb ak xat-xat Euh, góor goo xam ne am nga soxna wala célibataire nga yéen ñaari yam ci ataaya li ëpp ci li muy bu amee fu ma ko laaj différence danaa ko différence incha allah lan lay firi day firi stabilité sociale wala dana firi stabilité ci sa wàllu commerce bu dee da ngay commerce wala ci sa liggéey day firi yokkute bu baax a baax a baax. dana firi tolof tolof ak i xat-xat ak i problème yuy dañ su la ci fekkee gént naan ko ci góor bu am soxna bu amul soxna day firi wërsëg day firi jàmm day firi dal danga gént toogu ndox say xarit di naan ataaya moo xam yaay ataaya moo xam dañuy ataaya yu la jox baax na ci gént day firi relation bu dëgër day firi jàmmoo ci sa diggante ak ay xarit wala nga am ay nit ñoo xam ne yàlla mën na laa boole ñoom mu nekk nit ñu la amal njariñ baax na ci gént lool ci góor yi may bëgg wax nag ñëpp ñoo ko bokk ci gént ataaya ban ak ban baraada ak kaas nga gis baraada bi tàng jër te amul dara day firi nit ñu añaan day firi nit ñu soxor day firi crise baaxul ci gént kaas yi ngay attaayaa mu toj ci gént baaxul day firi tolof tolof day firi xat-xat day firi yaakaar bu tas danga gént di raxas barada kaas yi day firi atteindre sa objectif ci say projet da nga gént di naan attaaya ci kaas bu tilim ñëpp ñoo ko bokk baaxul day firi yow nit nga koo xam ne yàqkat nga da ngay am mais da ngay yàqate di gaspiller sa am am nga nekk insaan mubazzir yàqkat te alquran ne minal mubazirin euh, baaxul daal maanaam ñi nga xam ne ay yàqkat tamit dafa wax ne ay mbokk seytaane la voilà gént di naan ataaya ci euh, kaas boo xam ne gis nga ne ataaya baa ngi ci mu verte day firi wér ci ay feebar ji da nga gént di dagg garab boo xam ne xobu ataaya la ci origine ba nga di ko witt ci gént bokk na ci gént yi gën a baax lool day firi alal day firi wërsëg bu yaatu ubbeeku avancement ci yow ci gént ji ala kulli bunt baa ngi noonu ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné partagé wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.